waaw asalaamaaleykum mbokku internautes yi ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen ziar euh, tey nag euh, video bi ñu def vidéo baalu àq la vidéo delloo njukkal la suñu abone yi ci fet gu tedd gi muy tabaski muy fet gu mag ci ñun ñii di jullit ñi ñun musulman yi muy fet goo xamante ne je pense que ne amal nañu solo amal nañu njariñ et di leen baalu àq bu surtout ñi nga xamante ne ñooy abonné par Parle Foot les inconditionnels de Diego Parle Foot vraiment am Sen fay gis na aujourd'hui euh, abonné yi ñoo ngi plus de 50 000 abonnés mu nekk loo xamante ne lu lu lu spécial la ci man di merci infiniment et également di leen encore une fois te di leen baal di ñaan rek euh, di ñaan rek liñ ci def ci ay jàmm yàlla yàlla nangul ñu ko yàlla fajal ñu aaje yi ñun ñëpp euh, encore une fois tamit di baaluwaat di baalu ci titre yi nga xamante ne des fois dafay waroog contenu bi mais je pense que ni que ñi nga xamante ne ñu inconditionnel yu jéego yi comprendre nañ et loolu rek moom moo ci am solo euh, man nag vraiment euh, tey nag comme ni nga koy gisee noonu joueurs yi Sadio Eh, gis ngeen ko loolu la sañse woon tey ji ci tabaski yi eh, mu nekk eh, vraiment feet goo xamante ne comme ni ma leen ko waxee ñun musulmans yi dañ koy féete également même suñu mbokk yi sax da ngay gis vraiment moo ñu ñu nekk ci ànd ci ak ñun donc mu nekk lu am solo et que tey gis nañ Sadio mu post yi nii souhaité képp koo xamante ne musulman nga fête feetuk jàmm feetuk dal feet goo xamante ne dinañ ci nangu suñuy ñaan ak li nga xamante ne ñu ngi koy bëgg ci avenir yëpp yàlla may ñu ko man moom leen rek lay ñaan mooy que yàlla bàyyi ma ak yéen yi nga xamante ne yéen les inconditionnels de Diégo Parle Foot yéen yi nga xamante ne à chaque fois yéen ñuy topp à chaque fois bu ñu dugalee vidéo ngeen commentaire vraiment am seen fay di euh, jaajëfal ñëpp ñëpp ñëpp ñoo xamante ne yéen ñuy topp di leen wax rek encore une fois ngeen wéy di abonné ngeen wéy di like ngeen wéy di commentaire lu ci am solo la dinañ gën a yokk vidéo yi dinañ gën a euh, euh, améliorer contenu mais alors nak yéen ñu ci gëna jappalé vous ngeen abonné moy ngeen vous moy ngeen commentaire donc nak li la leen j'espère que vous euh a ngi bu baax rek di like di commenter